ñu daj ci paquet. Ah, donc gis nañ ne defal nga fi Zénith euh, donc mu amoon réussite totale vraiment euh, ñëpp kontaan diaspora bi yëpp donc Viviane est-ce mu ngi euh, envisage pour dem Bercy. waaw balaa may dugaat foofu sax dama leen di remercier waa diaspora parce que vraiment Zénith bi moom macha allah. Hmm. gars yi doyaluñu sax ah doyaluñu woon tellement. puis euh, vraiment daje nañu fête la woon et euh, Afrique la woon ñun ñëpp a dajaloo ah gisante booloo enjoy euh, di leen remercier waat ci loolu te di di déglu nag staff bi parce que man maa ngi liggéey ñoom xam na bu ñu paree rek. en tout cas ñun moom soxla xam naa ne gars yi soxla nañ la Bercy moom waa diaspora. non incha allah liggéey xam nga te foog naa ne Viviane à Bercy moom loolu moom lu nekk la quoi. ñu ngi ci yoon bi ngi ci yoon bi